Eh, kilifa ak jataay bi di dalal sëñ Fàllu Mbakke xafidahu llahu waraahu ak mbooleem ñi sant njaay ñoom dama leen di boole benn kalima ndax njaay di ko takraar axyaanan mën naa jur ay mbir kon bu ñu ne ñi jógee Paris njaay ñëpp rek wa ma xawlaha ñu ngi leen di dalal eh, di dalal sëriñ daara yi incha bi su ko defee ñu woyee liggéey bi ba ci kanam bismillah incha allah ñu taaxeelu tuuti ñi mokkal ñu dugg si kon ñu ngi fàttaliwaat bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne bokk na ci liy doxal daara ji te am ci comme ni ko Cheikh Mouhamad Diop al imam waxee mel na ni ñi nga xam ne ñoo mokkal ñu jublu si kon dañuy jox sëñ daara Omar xale yi ñoo jara dundee aywa aywa macha allah ay bu moom rek la ñuy dund jug leen ñu taxaw màggal alquran dara session yi bu moom rek la ñuy dundee la ñuy dundee aywa aywa ay bu moom rek la ñuy dundee héréditaire peccum liir bu leexee nday jaay jàpp sa liir do do mbagg ma li war a lépp nag mooy ustaas yi ñoo jàngal xale yi damay wax ne bu année bi nekkee trois cent soixante cinq jours ustaas yi soixante jours yi la ñuy nëbbalu trois cent nangam jours yëpp ñu ngi xale yi si guddi yi si bëccëg yi si ngoon yi si marax yi si yëpp ñu ngi si xale yi di sonn si ñoom ustaas ñëw leen yéen dañu war a teral tey yéen macha allah takbir ma bëgg ñëpp jóg màggal ustaas yi ñu nekk ay jàmbaar yi xam ne ñoo jàngal xale yi ne ñëpp tàccu leen. macha allah xam naa ne tey fii dina xumb dina dagat dina xumb dina dagat ndax Cheikh Mor Talla dafa bëgg bis bi bis bi saf sàpp alxuraan te xam naa ne dana saf al sàpp alxuraan. macha allah xale yi ma gis seen xar kanam yi waajal nañ leen. dem déglu rek ayca bisimilah. ñu ngi am solo ci daara ji. ñu ngi leen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 ربك أو ياتي بعض آيات ربك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barakallahu fiik sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim jërëjëf sëriñ Xaadim Diop jërëjëf Cheikh Mouhamadul xam naa ñu attali léegi rek xam nga ne daara ji dafa am ay góor ak jigéen fii ci ñuy defee liggéey bu am solo bi ay jigéen a fi ay góor a ngi fi waaye fële ca fajaa fële góor ñi ëppee waaye ay jàngalekat yu jàmbaar yi nekk fa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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله partie bi logement bi ñu doon dawal dafa mel ni fii la yem xam naa ñu jëkkandikuwaat bu baax ni ko sëñ Mamoun waxee léegi tey moom ku déglu da nga dégg ndax wax na léegi ne xale yi ma gis ak seen xar kanam yu leer yi danañ fi indi lu yéeme alxuraan ju rafet macha allah kon nag dañuy bëgg a dugg ci deuxième partie bi. ñu wax ne ak nombre bi ñu am ak kàddu yi ñu fi war a teewlu muy kàddu yu am solo war a jugee ci kilifa yi mel na ni mën nañoo yóbbu ba heure bi xaw a sori kon nag li ñuy sàkku ci ñëpp rek ñu gën a defarwaat te waaj waajtaayu ànd ak dara ndax xam ngeen ne ba ñu tàmbalee ba léegi ñaari junni rek lañ fi indeegun te sëñ daara laay jox mu continuer liggéey bi ci ñi nga xam ne ñoo mokkal bam laajaat ko incha allah su ko defee ne ñëpp ñu waaj waajal seen bopp te xam ne xale bi wàccee ci photo bi balañ koo jox diplôme am ay mbokkam ak ñi fi teew ñëpp danañ jaar fii am na ñu def ak ñun ndax kat tant bi li ñu ci war daa bari tànt bi li ñu ci war dafa bari ñun ñoo waroon ñëw tànt tànt bi defar sées yi togg añ yi suñu paree ñu tàllal suñu mortaal loxo mu ñaan la ñibbi waaye malheureusement yàlla dafa dogal amuñ kàttan amuñ xaalis te yeneen suñuy mbokk yeneen suñuy xarit ba tax na li ñu war la woon suñu mortaala dara lañ ci dafa gut te ci taal bi lañ ko yaakaaree ndax di suñu magum daara di suñu sëriñ di suñu xarit di suñu mbokk fonk ñu lool sopp ñu lool kon nag am na ñu lu warloo ak suñu diggante ak moom kon nag bu ñu wootee bis bis bu rëyee nii bis bu màggee nii bis bu taaroo nii xale yi ñëw tari alquran ju neex ji ci tàmbali bi mu war a dalal suñu xel ne bu ñu demee ci baasim parti bi yëf yi dana gën a daw mi te yaakaar naa ne kontaan ngeen ci première partie bi ku kontaanul yëkkati sa loxo ku kontaanul yëkkati sa loxo kon ñëpp kontaan kon nag na feeñ ci jëf ji na feeñ fii suñ taabal yi macha allah kon xam naa dañuy taxawi comme ñoo yoroon micro bi ñu tàmbalee ba léegi ñu ñu dallu tuuti rek jox suñ daaru amar aleykum salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Amadou Fadal ñoo ngi lay ziyaara bu baax di la ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel ñi nga àndaloon liggéey bi boobu ba léegi Serigne Fadil Ndiaye ak ñi mu ci taabal ji ñëpp di ndokkeel bu baax suñ mbokki jàngalekat yi nga xam ne si ñoom ñoo jiite woon liggéey bi ànd koog Cheikh Mortala ci liggéey bu rafet macha allah ñu la ñuy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax di wax ne jàngale alxuraan jafewut dafa metti jafewut dafa metti mooy bu fekkee jàngale yeneen matières yi dafa jafe waaye bu dee alxuraan moom dafa metti ndax danga toog yor fanweeri xale kenn ku ne yor programme boppam kii di jàng ijji kii di jàng sax baqara kii di jàng këf su ko defee nga dem ba une jot ñi mokkal ñi des mokkal te boo leen fa bàyyee duñ jàng léegi nag moo tax heure yooyu nga leen joxaat loolu moo tax mu metti kon jàngale alxuraan dañuy wax ne jafewut dafa metti kon day laaj ay heure yu baree baree baree baree baree baree nga koy toog kon ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di leen ndokkeel tabaaraka rahmaan su ko dee ko rek si fal waxee kon yàlla dogal na am nañ fukki xale ak juróom-ñeent yu mokkal alxuraan damay njëkk a xale bi ci njëkk di Siyama Amadul Fadil Njaay Mahamadul Fadil Njaay walla Fàllu Njaay Tuuba Fàllu Njaay Tuuba tur bi dëgg nag mooy Mahamadul Fadil Njaay di doom ci Sëriñ Cheikh Rachid Njaay ak Soxna Baali Njaay dëkk Tuuba judd la 23 quatrième mois 2012 sëñ bi kon mën ngaa ñëw jege si ci gàngu naa gi incha allah ma bàyyi la gaa yi jox la sab laaj Cheikh Mahamadul Fadil Njaay wala Fallou njaay tuuba bisimilah mën naa jege si. ànd ak loolu ñuy jaajëfal bu baax ci njiital Seydou Moustapha Diop al akram euh, na ña ngi koy jaajëfal bu baax ak ñi àndal ci liggéey bi ñëpp ñi nga xam ne ngi jàppale si Mortala ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci waañ wi di jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen jaajëfal bu baax di leen ndokkeel di leen wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye di leen sant bu baax a baax a baax. ndax fan yi yëpp ñu ngi ànd ak suñu taalal liggéey bi xam nga lu mel nii dafa yombut mbooloo ñoo koy def su ko defee ko ñi nga am ne ñoo dagg seen yitte moo xam ñu jaaroon ci daara ji wala jaaruñ ci daara ji wala ñu nekkoon ak suñu taalal fële ci suñu xadim waaye ba suñu xadim xewlee ñu dagg seen yitte yëpp ngir ñëw jàppale ko ci liggéey bi amal leen cant amal leen ngërëm. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Mahamadou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 بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما ومن الناس طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا فأصلحوا قال الأخرى فقاتلوا فقاتلوا المقسطين إنما المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين أقويكم واتقوا Fàllu sëñ Mahamadul Fadal jàng na ci riwaayatu Warsh Naafi waaye ci tarixe bi ñuy wax tarixatu asrax waaye mu jàng ci anam bi ñuy wax xasru badal xam nga warshu am na tawasut badal am na isbaax am na xasru waaye li doon jàng nii tey mooy xasru badal lu mel ni amanu lañ gën a miin ci war fii mooy dañ koy xëcc dañ koy xëcc ñeenti xaraka loolu mooy tawassut bu dee isbaax ñu xëcc ko juróom-benn xaraka bu dee xasru nag ñu jàng ko ñaari xaraka mooy amanu imaanan uutu yu mel ni ay laaxirat yooyu léegi moom moom li jàng nii mooy xasru badal bu ngeen seetloo suñu fàllu mi nga xam ne mooy jiite ci jumaa ji ren moom la jàng moom la jàng moom la jiitee euh, sëñ abul baraka daaw moom la jiite woon waaye ren dafa def tawasutul badal waaye bu dee daaw dafa defoon xasru badal kon su ko defee kon léeg ñi nga xam ne si dañ koy dégg mooy mooy jox ñu indi leeral yooyu rek kon sëñ bi suñ Fallu ñu bàyyi la im makar bi insha allah jërëjëf Cheikh Omar Kane seen daara ci leeral yu am solo yooyu jar na leeral ndax xam nga ñun ni ñu tàmmee jànge mooy tawassutul badal lu mel ni ay amanuwug yu uutoog yu yëpp imaana yu yëpp ay badal la naa madul badal macha allah ci leeral yi bu gisee mu ne amanu rek xëcc ko xarakatay ni ci ñun ñi nga xam ne si àlli soriwul te ñuy topp njàngin wi su duñ ciy doog a dugg ci wàllu tatbix ya ci aju mën nañoo jàpp ne ah ñi kat waajaluñ leen ci wàllu xëcc yeeg ya ci aju kon macha allah ci leer yu am na solo dañuy woo Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké mu jox sëriñ Mouhamadou Fadal Ndiaye Touba shahada bi incha allah su ko defee mën nañoo dem fële ca ca photo bu rafet bale sëñ Mor ànd ak waa daara Cheikh su ko defee sëñ daara euh, su defee mën naa wàcc Cheikh Fallou Ndiaye mën ngaa wàcc Touba sëriñ Mouhamadul Fadal Mbacke moo ko jox shahadaam bismillah bu fekkente mi ngi fi sëriñ Mouhamadul Fadal Mbacke ñu ngi woo ay waajuram ñu def aller retour aller retour nañ def aller retour jëf. ñaari moof la xam nga moof moom. Cheikh Mouhamadul Fadal moo koy jox. naam ku ma ku ma jege tuuti. macha allah. macha allah Cheikh Mouhar Fara tari na bisimilah bi jox ko na am ku ma jege ci organisateur yi di ko jottale seen ak soxna Mariam Fall dëkk Dakar ki du la 13 septième mois 2013 damit mën ngaa nuyoo incha allah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu bàyyee Cheikh Mamadou Fadal mu jox sa laaj bisimilah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 يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى قالوا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا مثلنا سلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا وقد هدينا سبلنا ولنصبرن ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون حسبك صدق الله العظيم jërëjëf Mamadou Amine Sène di doom ji sëriñ Modou Sène ak soxna Marème Fall jërëjëf su ko defee kon sëriñ Fallou Ndiaye mi doon tari léegi ay waajuram wala moom ci boppam mooy bëgg a jox cadeau ab sëñ daaram di sëriñ euh, Mortala Ndiaye mi jiite daara ji yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla euh, sàmm alxuraan ji te teg ci xam-xam bu baree baree bari macha allah. sëñ Fallou kan moo ko jox shahaadam. Baye Makoddu Ndiaye moo ko jox shahaadam sëriñ Makoddu Ndiaye moo ko jox. Euh, soxna nday nday Aminata Mbeng ñu koy wax mama mama Mbeng moom moo toog noonu di doom ci sëriñ Omar Mbeng ak soxna Kiné Sarr dëkk dakaar macha allahu taala sama baay ñëwal ba agsi ba noppi bala maa joxe sama laaj ma bëgg laaj waaw fii la waaw tabaaraka ak soxna Kiné Sarr Dakar moom moo toog noonu mën ngaa nuyoo incha allah waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu bisimilah. soxna Ndeye Aminata ibda'i min qawlihi ta'ala ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق بسم الله حسبك وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما تنزلت به الشياطين وما ci Serigne Omar Mbeng ak soxna Kiné Sarr macha allah yaayam ñëw na andi addee ju am solo tabaraka rahman addee am solo yal na yàlla fay barke alquran su ko defee euh, maa ngi dalal bu baax sama ñaari Serigne suuf sama ñaari xare yooyu Serigne Chouaib bu Mbakke ak Baye Galas Mbakke di waa kër Serigne Abdoul Fatah Mbakke di samay xarit yu yàgg Serigne Fallou ñoo xam ne. macha allah ñu ngi leen di dalal bu baax di leen jox seen wàccuwaay. xam naa soxna Amina ñu ngi lay ndokkeel yàlla na yàlla barkeel alquran ji dafa la tawféex ba xam-xam bu yaat topp ci dañuy woo sunu magum daara sëriñ maam Balla Sil mu ñëw jox ko shahada bi incha allah sëriñ maam Balla Sil di kenn ku ñu xam ci daara. soxna Fatima Diop na ñëw jege si incha allah soxna Diop mooy doomi sëriñ Omar Diop ak soxna tay bu dara dëkk Ndar juddu la maa ngi fàttali ne ñoom soxna yi jigéen ñi ki leen di jàngal mooy soxna may a Kan comme ni mu amee ay jàngalekati góor ñuy jàngal góor ñi noonu la amee ay jàngalekat yoo ay jigéen lañ ñuy jàngal jigéen ñi kon daara ji moom jigéen ñi ay jigéen rek ñoo leen di jàngal ñoo leen di saytu ñoo wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa barakaatu bismillah soxna Fatima ibda'i min qawlihi ta'ala ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim ما ننسخ من آية أو ننسها بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية آياتنا وننسها أو ننسها ناتي بخير منها بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما فل يعلمون من هو شر مكان من هو شر مكانا وأضعف جوعا خير عند ربك خير Tubuh manusia ma Diop ndeysaan xaw naa kii waaye wax dëgg yàlla njàng mi wér na lool te neex lool macha allah yàlla na yàlla def mag def la magum lislaam barki alquraanu karim macha allah. macha allah jërëjëf sëñ Daara soxna Fatima Diop ñu ngi lay ndokkeel ñu ndokkeel say waajur di ndokkeel ñi doon jàng alquraanul karim dañuy woo Serigne Fallou Seck mu jox ko shahadam incha allah Serigne Fallou bismillah bu dee miñ ci tànt bi mu jox ko shahadam. ndax mbokk yëpp di leen wax ne kon buñ ñu dem dañuy julli ji buñ neppee ñu añi daal dellusiwaat sëñ Mouhamed Diop nee na ma wax waa Përi Ndiaye nee na ma wax waa Përi Ndiaye ne leen buñ noppee dañuy julli dem ña ngi ci waajtaay wi xam nga ren dañ koo def dañ koo tëbaloon dañ jox ko ab laajam insha allah bismillah xaalin badara ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytan alrajim بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmani rahim ja'ala allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman linnas qiyaman linnas wash-shahra al-haram والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي القبيح والطيب الطيب ولو أعجبك كثرة القبيس فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون حسبك صدق الله العظيم del wax ne Cheikhouna Niang mën ngaa dem sa place itam ñu woo Cheikhouna Niang cheikh naa ñëwal su ko defee Chouaib bu kan na jege Chouaib bu kan mën naa jege si incha allah su ko defee ñuy soññ ñu yor xale ñu ñëw ñu jëkkalante waxtu wi ndax waxtu wi xat na lool te dañu war a jàllale bari na. rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ cheikh naa ibda min qawlihi taala baada audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله sëñ bi xaaral tuuti xaaral tuuti xale yi dugg ba noppi nga continuer jàng incha allah na xale yi bismillah kon jàll si ren na xale yi jàll si boobu noppi incha allah. waaw kon mbokk ñu delloo laa suñu gan yi. waaw. mbokk jaara. alxuraan a ngi muy li yéeme yéeme. buñ bëggee. ëllëg. nan toroy si xale yi. xale yi. ni ñu leen formé. ëllëg dina jaar si yoon. ndax li gën si li ñuy jàng mooy alxuraan. li gën si li ñuy jàng mooy alxuraan mooy téere fi yàlla suñu borom dañuy wax ne ëllëg yowmal xiyaam amul benn téere buñ fay tari bu dul alxuraan moom ngay tari yàlla naa la yéegal yéegal yi amul lu gën a rëy alxuraan mbokk yi nan bàyyi xel si xale yi ñii ñoy ñooy référence ñooy suñuy référence ñii ñooy mag yi li ber di bër góor ñi di leen jàngal jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñooy nekk bu bëggee réew mi jag nan jàpp donga daara yii xam ne ñoom ñoo yor réew mi macha allah daara mi ngi si liggéey liggéey bu baax a baax a baax di sant bu baax sëriñ daara yi ci jàngale mi ak yar bi li def si xale yi muy lu am solo solo solo nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax damay wax ne lii bu ci saxee ñun réew mi doo déggat agression doo déggati dara loo xam ne day ñaaw ci réew mi ndax képp ku jàng alxuraan sa xol leer rek moo ciy nekk képp ku jàng alxuraan sa xol lu baax rek moo ci nekk doo jël paaga di agresser kenn wala nga jël paaga di def lu ñaaw alxuraan rek buñ bëggee defar jeunesse bi buñ bëggee defar réew mi nan delluwaat ci alxuraan mbokk yi alxuraan ak jàngale yonent bi moom rek moo ñu mën a jàllale ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax gone yi man a ñooy sama référence xuma nag kan waaye man ñee naa leen te ñoom rek laa sopp ñoom rek laa bëgg te xam naa ne buñ ci taxawee insisté si bu soobee suñu borom réew mi dana baax may ñaax parents d'élèves yi di leen wax na leen di leen wax na leen yéen parents d'élèves bu leen masa tayal si yóbbu seen doom si daara bu leen masa tayal si yóbbu seen doom si daara bu leen nit di wax naan leen daara dafa metti wala daara jàng alxuraan dafa metti xam leen alxuraan moo gën بسم الله Sadaqallahul Aziim jërëjëf jërëjëf Muhammad Alxasan Ndooy Muhammad Alxasan Ndooy dañoo jege di dem di Serigne Pape Ndooy Serigne Pape Mbaye Ndooy ay soxna Jaara Diop dakk Dakar juddu le 24 5 mois 2010 suñu fàll moo toog ni ñu bàyyi kook Cheikh Mamadou Fadal moo jox ab laajam incha allah bismillah Cheikh Mahmoud al Hasan ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arrahmani arrahim واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم بسم الله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 وَكَلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً عليكم غمة تعقدوا إلي ولا تنزرون فإن توليتم فما سألتكم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله المسلمين حسبك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار محصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ضيقا لولا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا حسبك صدق الله العظيم jërëjëf Mouhamad Al Hassan ndooy baax mba Pape Ndoy ak Soxna Jaara Jóob dëkk dakaar macha allah ci ñaari laaj yi nga ñu jox benn bi ci téere kaw bi benn téere suuf yàlla na yàlla barkeel yàlla def la mag def la magum lislaam barkeel alxuraan suñu fàllu kam na ko jox shahaadam jërëjëf Cheikh Mouhamad Al Hassan jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah barakaatu ma ngi judd le 28 11 mois 2013 tabaaraka rahmaan ñu bàyyi koog Cheikh Serigne Salih Mbakke wala Serigne mu jox ko ab laaj incha allah bisimilah. Mouhamad mën ngaa tàmbalee ci fi ñuy wax aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa atba'a sababa hatta مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أهتنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج ويأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا حسبك صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى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 sadaqallahul aziim masha allah muhammad jallo doon ñu jàngal riwaayatu xafs an aasim xam ngeen daara ji dañ jàng riwaayatu warsh an naafi ci tariix bi ma ne waxoon léegi mooy tariix azraq moom la euh, daara ji di jàng waaye léeg lekk am ku ñëw ci daara ji àndaale benn riwaaya muy riwaayatu xafs wala riwaayatu qaalun bu ñëwee dañuy jéem a continuer ak moom ci riwaay boobu rek incha allah loolu ma tax Mouhamed Diallo mii jàng riwaayatu xas du ñàkk ngeen déggaat keneen jàng riwaayatu xas loolu may sabab bi te loolu moo war a nekk ndax comme riwaay yëpp ay riwaay yu wér la euh, képp ko andi ab riwaay ci daara au lieu que ñu lay dëppal di la jàngalaat beneen riwaay mën nañoo continuer ci daa ci riwaay boobu rek incha allah suñu fàll kan moo ko jox shahaadam incha allah jërëjëf